asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk auditeurs yi yéen ñi ñuy seetaan ci baaxu di seetaan seen site bu mag bi Allô TV international. tey nag ñu ngi ñëw ci seen émission bu mag bi muy le grand débat ñuy dalal koo xam ne kenn la ci réew mi kenn la ci umma islamique bi xam naa dañ ko bàyyi ci kanam mu pré présenté wu wax leen moom mooy kan sëriñ bi ñu ngi قبل هذا اليوم يبدو دي خبل اللي من بسيط ولا لا دوم سيم سوا الرحمن جندا وكرم بوي سوا مرمى كل سوا يدو بوي يا خمنا يا تام موي واي يدو بوي يدو بوي سيم سوا الرحمن بوي سوا مسلم وتبك دون كو خمنا موتين وتلاقيه كوي يبوك لي ñu ngi gënee àdduna fu ñu yor Darou Salaam Kayal ñu toll ci jàng alxuraan ñu yóbbu kër suñu soxla yi foofu lañ daan tàmbalee waaye yàggu bi fa ginnaaw ñu yóbbu ñu jaaree kër sëñ moom ngay Cissé foofu lañ nekk ak ba yàlla dogal ñu bindee fa ñaari kër ginnaaw ñu fa jógee ñu dem ci képp koo xam ne ku ràññiku la nga xam ne jàngal na ay kilifa yu bëree bëri ndax sëñ Mourou Moussa moo ko jëlee moo ko indi woon ngir mu jàngalee mooy sëriñ Aliou Mbacké fa lañ jàngee ba jàng fa téere yi yu bari ci téere yi nga xam ne moom la ñuy jàng foofu ginnaaw bu yàlla dogal ñu ñu dem Arabie Saoudite Riyad nekkoon ci université Imam Ibn Saoud Mouhamed Ibn Saoud foofu lañ demee fa amee fa licence ci littérature arabe ndax bañ fa jógee nag gëstuwaat nañ fii ci ci Sénégal si mutulaa yóbbu woon mu daal ci école bi nga xam ne moo fa nekk nekkoon fa directeur waaye yàggul fa yàlla dogal ñu am visa pour dem Amérique te fekk yàlla dogal na ba ñuy jàng itam dañoo doon góorgóorlu ci jàng langue jàng anglais ba ñu dem ba ñu dem fa yàlla dogal ñu ñu dem fa ngir ñu gën a yokk suñu xam-xam ci anglais bi dem ñu nekk fa quatre-vingt-douze ba quatre-vingt-quinze ñu dellusiwaat Sénégal ñu desuwaatee quatre-vingt-quinze Sénégal ñu nekk fii ba deux mille deux mille ci lañ ko mën a wan ko amee ñu dem waaye bañ demee yàggul fa ñetti weer rek lañ ko def desuwaat bi ñu bañ delluwaatee te santé que suñ tubaab nga xam ne moom lañ doon def am New York sotti sëñ Mot laa ubbi ko ci ajuma ji ñett ajuma ñaar bi ñu noddee di ko mu mu yabal ndaw ne ko naa jiite. ma jiite ba noppi mu wax mu woolu sëñ Mamour jàpp nañu ak parcours bi nga def yëpp nga xam ne jaar daara ba ni nga demee ci réew naar yi ba ni nga de comme nga expliqué léegi ba ni nga demee États-Unis euh, deux mille un ubbi jumaa ji gën a rëy foofu. ci sëñ laa ubbi ko keroog bi mu ko jiitee àjjuma ji njëkk ca bi mu la yeblee foofu ci la xamoon mbooloo mi moom moo la fa teg moo la fa bàyyi donc treize ans nga def ko mais mu am loo xam ne tey daanaka moom ñu bari xëy na xaw euh, leer ci ñoom mooy bi ñu ubbee jumay grand mo Masaalikul Jinaan bi ci Ndakaaru am na ñoo xam ni xaaruñu woon ni sëriñ Bassirou sera l'imam de la grande mosquée Massalikul Jinaan te ñi bëggoon xam imam bi nan la ñëwee ci yow ba ñu indi la fii teg la da doon imam grande Massalikul Jinaan waaw maanaam mi ñëwee ci man comme ni ñëwee woon ñëwee woon ci man ci ñëwee ko rek maanaam ci mun taxaw moo moo moo ko xalaatal boppam waxoon ci suñu seex masi lay bañ di wowoon ci yàlla dogal nag di di di di suñu seex masi lay yëpp jógee itam mu fekk liwaat ko bu ñu demee ba yëf yi mu gën du ko fekk ci waatam lépp ci maanaam gis-gisu boppam la waaye du ne naa fa dem wax ko dara du ne keneen na fa dem wax ko dara waaye moom moo gisa boppam ba def def moo xoolal ko taw moom itam moo xoolal gis ne war naa fi mën a nekk loolu nekk mu nekk fi loolu itam jërëjëf euh, sëriñ bi comme ni nga ko expliqué ni mu mu clair mooy ni ni sëñ mutulaa ni la jëlewoon def la nga doon imam New York sans pour autant sa nga bañ ko yëg noonu la ko suñu Muntaxa Mbàkke mu baax mi yàlla na fi euh, waxtaan ko ay ñu ko war a waxtaan ba jël la teg la sans pour autant sax yow nga dem wala keneen te biñ la koy def sax yëgu yëguloo donc mu mel xëy na bi ko xalaatee moom yëgal na moom hmm. ne ma maanaam fee mu ngi ñu ngi koy liggéey liggéey ba sori na ñu bari xëy na ñu ngi koy xalaat waaye man yow sama yow la daal di ko yëngu foofu daal foofu ma koy yëngu loolu avant liggéey bi noppi la. la ndax boobu suñ si mutar mi ngi ñu sëriñ bi loolu la ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax ñu xamal leen ni kon sëriñ bi maanaam bi ñu koy fal imaam sëriñ maanaam ndigal la nga xam ne moo ko moo ko yóbbuwoon ci États-Unis ndigal la la ko tegoon États-Unis ndigal loolu rek moo ko indiwaat fii ci Massalikul Jinaan sëriñ bi gannaaw bi ñu ubbee jumaa ji ba noppi. sëriñ bi euh, sëriñ Mountakha ñëw fi umma islamique bi ñëpp daje ñu invité le président Abdoulaye Wade bi nga xam ni terrain suñ borom ñu jaar jaarale ci moom mu doon taalib Serigne Touba def ko addi Serigne Touba boole ci sax wax nañ ni cinq ak ñi nga xam ne ñoom la ko àndaloon ci jooju jamono waaye bi ñu ubbi jumaa bi mu fekk na ni le président Macky Sall moom mooy président de la République moo doon ñëw fekk si li nga xam ne julli bi mu fi ñëwee fekk fi daje fekk président Abdoulaye Wade keroog bi sëriñ bi jëlee kàddu li nga xam ne mooy diggante doom ak bàyyi gis nañ jubale na le président Macky Sall ak le président Abdoulaye Wade mu doon loo xam ne tamit euh, ci place bi mu amee nit ñi xaaruñu ci woon waaye ñu jàpp ni kon loolu mel na ni Serigne Touba gën na faa wanewaat boppam gannaaw bi ñu ko defee ba noppi léegi mu am loo xam ne le président nag Sall woote woon na ko muy dialogue national ci biir jubóo boobu yan kàddu nga ci am yoo xam ne mën ko ci sànni. moom a mën a rafetlu ndax nit kala kala yar dugal la ci dara nga nekk ci ba dinaa nga fekk la ba lay la ci fekk fekk la ci. yaakaar naa xëy na bu réeroo amee suñu diggante itam mën naa ko war a bañ a bañ yàgg wala ndax da xam ne euh, li ngay li ngay li ngay doxe tey lu bari ci moom nga ko jëlee kon nag naa ne nekk ak moom di di gën di jàpp di di déggoo moom di di jàpp te loolu dana doon sa njëriñ dana doon loo xam ne itam lu lay gën a dana doon itam lu baax ci réew mi ndax. kenn ku ne xam na ne am na expérience yàlla dogal na itam ku ne xam na ne am na relation. Hmm. léegi yàlla dogaloon ne yàlla dogalee ne kii nag ku ne xam nañ ne am na expérience ku ne na ne itam am na ay relation hmm. bu fekkoon ne relation yi ak expérience yooyu mi ngi doon continuer depuis ba président Macky Sall nekkee président. Hmm. bu fekkoon ne mi ngi continuer seen diggante yaakaar naa mën naa lu bari comme dana lu bari ci li fi doom nii waaye nag xëy na réew mënut a ñàkk waaye nag. bu wéeru amee itam ñi nga xam ne xam nañu responsabilité defar ak li defaree li ci nekk ci njëriñ fuñ fuñ gisee buntu boo xam ne war nañ caa mën a jaar rek ba mën a defar si diggante yi loolu danañ ko def te yaakaar naa de maanaam foo mën a wax ne suñ mu taxaat da gën a faag euh, président Macky Sall ak Abdoulaye Wade fii rek la njëkk njëkk am mm. xëy na ku ne daa nga dem waaye nag ñu daje benn place moom fii de la njëkk am kon xelam wër du xelam yaakaar naa du dem ci ludul comme yàlla dogal na xam na ne ñëpp xam nañ na lu dox seen diggante. loolu la def a seet nu a jubbanti. maanaam nu mu nag la def maanaam xam ne am na responsabilité fu mu gisee loo xam ne du noonu mu jéem defar fu mu gisee nag lu lu defar bi itam mu seet nu gën a yokkoo loolu responsabilité boobu la yëg ci boppam bu tax mu ne kon na dox yëg yi nga xam ne yàlla ko dox. yàlla dogal itam ñu ngi ko doxee yàlla ci tawfeex yaakaar naa bari ci ci Sénégal waaye moom yàlla defal ne ñoo ko seet wane ne dara nekk fi ñu war a jàpp nañ ni dialogue euh, national bi nga xam ne président Macky Sall ñu mel ni kon lu bari dina gën a yomb léegi. waaw waaye naa loolu ndax ndax itam kenn ku ne xam na ne. maanaam PDS am na dara loola doole ci biir Sénégal kon lépp loo xam ne ñu ngi koy woote ci si national te moom boolewuñ ko ci wala doxewuñ wala bokku ci loola danañ ci am luñ ci yaakaar nañ ko war a yaakaar waaye bu fekkee bokk na ci danañ gën a am yaakaar ci ne maanaam la ñuy wootee war nañ ci mën a am li nga xam ne moom lañ loolu moom ci ñëw. sëriñ bi ñu jàpp ni jumaa ji nag bu ñu ko waxee moom. mel na ni umma islamique bi yëpp ñoo ko bokk. te keroog bi nga xamante ni si laataa sax ñu koy ubbee. li di Serigne Mountakha ñëwee une semaine de Dakar euh, jàpp nañ ni tarix yëpp ñëw nañ seet si Serigne bi ba ci li nga xam ni sax muy jàngu bi. Euh, ñu dégg lessage bi nga xam ne tamit seriñ bi ñu ngi koy véhiculer di ko di di ko jotale ñi nga xam ni moom la bokkal kër Serigne Touba bokk ak ñoom umma islamique bi tarix yëpp nañu ñëw. ñëw ànd ak sëriñ bi ci ouverture bi ban jàpp nga ko jàpp. waaw moom xanaa weesu rek xam ne ñun ñëpp ay jullit ñu te li nga xam ne moom la ñu yàlla moom rek la wax ne moom la moom ci kaw suuf. kon yaakaar naa buñ dee buñ wane ay jaamu yàlla lañ te ñu ubbi xam ne yàlla wane na ne moom rek moom moom la moom ci kaw suuf. kon loola yaakaar naa ne jullit yëpp war nañ cee mën a ànd xam ne lii ñoo ko bokk xam ne itam ñoo ci war a bokk ndox ñoo ci war a bokk boobu benn bëgg ñoo ci war a bokk itam jënd yéene loola kon maanaam warteef la boo xam ne jullit ñëpp dañ ko war a seen seen warteef la ñëw war koo taxaw kon gannaaw bi ñu ko ubbee nag jumaa ji nit ñi ñu ngi wax ni ñetti guddi Ndakaar bi nga xamante ni si sëriñ bi daj na ko fii ci Ndakaar bi tey Masaalikul Jinaan bi lépp fay na lépp mel ni suñu borom fay fay na Sëriñ Tuuba ban message nga am di ko lancé nag ñi nga xam ne ñooy taalibe yi fii ci Ndakaaru donc message bi ñuy lancé weesu rek ñu maanaam du sotti lu ne ci loxo yi am na du ñàkk ñoo xam ne ci ñoom lay sottee ci ñoom waaye nag sotti damay sottee ci ñoom itam ñu bañ a jàpp ne loola seen yëfe seen alali bopp la xam ne ñoom ñu ko war a seq ñëpp ñoo ko war a seq te seqal ko seqal wu rafet ànd ci ànd mu rafet loolu rek mooy li nga xam ne moom lañ ci moom lañ gis ne moo ci war a nekk ndax comme ñun dañuy wax ne ay jaam yàlla lañ ay jullit lañu kon la yàlla wax ne moo ko moom ci kaw suuf loole ñun ñëpp war nañ ko bàyyi xel xam ne ñoo ko bokk ñun ñu bokk wax ne ay jullit lañu xam ne itam ñoo ci war a bokk ñu ngi cay doxe xam ne itam du ñàkk nag ñoo xam ne ñoom la yàlla dogal mu sottee ci seen loxo. bu ko nag la yàlla dogal mu sottee ci loxo yi mu sottee doonte yi dañuy yëg ne ñu ñoo ko bokk tam danañ xam ne ñu am nañ ci cër boo xam ne bu nañ ci war a am cër boo xam ne duñ bokk ak ñi ci gis man xam ne daal maanaam njëriñ yàlla jullit yëpp nañ sañ-sañ def li ñu def ko fa. ki nga xam ne mooy le promoteur mooy Alaaji Mbàkke yu fay ci jamono Serigne Saliou nga xam ni boobu ba léegi moo fi nekk te gis nañ ni lu ne daj na ko pour jumaa ji ne ak si ci niveau bi mu agsi nga xam ni lépp lu taaru ci àdduna fu mu dem rek luñ ko wan pour moom day seet la gën a baax mu jël ko indi ko ci jumaa ji moom yan kàddu ngay sànni ci ci ci le promoteur Alaaji Mbàkke yu fay. waaw li ñuy sànni ci sa kàddu yi ñuy wax ci moom mooy xam ne rek. wax dëgg yàlla képp koo xam ne dugg nga fee ci barab bi da nga xam ni moom def na def góorgóorlu na fa def te tamit lay katalam ndax yaakaar naa bari na yu ñu fay gis yoo xam ne néew na gis ko feneen liggéey bi itam sell na sellin boo xam ne xam nañ ne ki nga xam ne moom ko tegoon ci loxoom jox génn na ci posté comme génn na ci yéene ba tax mu àgg fi nga xam ne moom la kon dañ def lu ñu ngi koy sant ndax liggéey la boo xam ne yaakaar naa ne kenn du ko gis xam ne ci ak diir bi nga xam ne moom lañ ko jot a liggéey nga war a mën a yaa am leen loo ciy xewal wala am loo ciy gis ci loo xam ne ak matandi ndax yaakaar naa ne lépp doonut loo xam ne da ko jël ñi rek waaye ay ay tànn lu doon def di def ko ci liggéey boobu loola doon bu fi mu fenn ci say bët nga gis ko maanaam lañ euh, laat waajuram bu jigéen ni mbokki sëriñ bi moo mel ni comme ni ko ni ñu ko waxee rek sëriñ bi gannaaw ba mu jaaree daara jaar daara joo xam ne mooy que sëriñ moo ngay siise ci njaareem jaar ci daara sëriñ Moustapha Guèye jaar ci daara sëriñ Abibou Mbacke bi mu fi jógee tamit dem bitim réew wax nañu dem na Arabie Saoudite gannaaw ba mu jaaree foofu yëpp ba dem New York 2001 bi mu mujjee dem New York fekk ñu ubbi jumaa ju mag muy jumaa ji nga xam ne ñu nekk ci digg New York ci biir capitale bi Cheikh Mouhamadul Mourtada Mbacké mi nga xam ni moo ko ubbi woon gannaaw ba mu fa jullee àjjuma ju njëkk jaca toog moom mii dafa yebal te ba mbooloo mi toogee xamal na leen ni moom la fi bàyyi kon moom nekk na imam de la grande mosquée de New York aux États-Unis avant que muy ñëw fii ndigal loolu ko fa yóbbu woon nag bàyyi ko fa ndigalu Serigne Touba jooju moo ko indiwaat Masaalikul Jinaan. Hmm. sëriñ bi ana looy tàggatoo ak ñoom la. waaw xam ñu waxtu ne ñu jéem a xam rek li nga xam ne moom lañ seq te di ko doxee li nga xam ne noonu lañ ko ñu ñu ñu ñu sant xëy na mën naa bañ jafe waaye nag kenn ku ne xam ne. doxin ma ngi ciy dox du ne sa sago nga ciy doxee waaye digalul suñ borom la lu mu la digal nga war caa nga war caa dem sa kër ay kattan loolu jéem a rafetal bi rek tey rafet jot suñu diggante bañ a dugg ci kenn loo xam ne luy war a ñaaw suñu diggante la ndax yàlla suñu borom bi muy xamal ni ñu war a seq li ñu war a seq dañoo xamal ne yéen yéen maanaam yéen ay bokk ngeen hmm. ndax am nañ ñu bokk. mooy bokk gi bokk di ay ñu gëm yàlla bi nga buñ bokkee gëm yàlla nag ba noppi itam da caa teg ne bu ñu xamee ne ay bokk lañ ñu gëm ñu bokk gëm yàlla ba noppi waruñoo yem ci xam ko rek kese waaye daa war a am lu ca war a topp moo tax mu ne na fa moo béy naa xooy mooy maanaam xam ngir ak soo da cee war a topp ak soo boobu nag dañ war a góorgóorlu ba defe ko ni suñ képp lay kattan lépp rafet nañ nañ ko mën. weer bi nekk muy weeru safar la di weeru màggal bi. benn message ngay lancé ci màggal bi. waaw màggal bi moom na ci message ci xam ne. seen hmm. i tubaab moo ko tuddee kenn ku ne xam ne màgg looy màggal lu nekk lu rëy la ci yow. Hmm. ndax nga ko tuddee. Hmm. kon looy loolee ngay màggal nag ba tax nga taxawal màggal muy lu rëy yow kon. ñëpp nga xam ne ñi ngi ñoo ñoom ñoo moom ñoo bokk yéene ji ak ak bëgg bi mhm. war nañ ko mhm. lépp loo xam ne lañ ciy def luy la lay doon mhm. luy sori loo xam ne dana dañ ciy def na sori loo xam ne neexul suñu borom ndax cant cant cant la tuddee maanaam cant la waaye cant googee màggal la ko tuddee màggal nag mooy lu rëy ci yow la ngay la ngay màggal rëy kon nañ nañ nañ jéem a jëm comme bi daa bëgg ñu dimbale ko ci loolu. Mm-hmm. nañ mooy màggale ko màggal gi. Mm-hmm. ci kaw ko teg ko ci. lépp loo suñu Imaam muy imaam de la grande mosquée Massalikul fii ci Dakar. ak seen émission bu mag bi le grand débat kii ñu seet si première émission bi le grand débat moom lañ ko njëkk a defal sëriñ bi Allo Dakar ñu ngi lay sant di la ñaanal nag suñu borom yéen yi mën a yéen mu doon lu oyof ci yow ndax lu la nit ñi yéene waaye war naa mën a nekk ndax jumaa yoo xamante ni si eh, jàpp nañ ko wax mu ni jumaay Cheikhul Khadim ndax sëriñ Tuubaa fu jaar fu nekk rek fu mu mas a teg tànkam jàkka la fu mu mës a julli tey jumaa waaye ndakaaru gi ci boppam mbégte la ci ñoom jumaa ji ñu ñu adressé Cheikhul Khadim ndax li fi tey waaye bu ñu ko ubbee ba noppi sëriñ bi ci ak jàngale ak ci li ñëpp xam ci sëriñ bi tey ku mel ne kenn ku jóge ci muy sëkk sëriñ bi ñëw doon imaam tey laaj na nag mëndu am ci xam kan mooy sëriñ bi loolu moo taxoon nag ñu jóg ci ñoom seet ñu ngi lay sant di la ñaanal ak alal nag di ñaanal suñu borom yéen nag ci sa kaw jërëjëf nag